Assalamu alaikum euh, Mboki Sénégal assalamu euh, mbok euh, yi nek ci diaspora bi ñu dellu si waat ci les vidéos de Barthélémy Diaz di lendi balu lundi bal di leen di di ñaan yalla nañu yalla bolé jëggal ñuy féké ay déwon yu bari euh ginaa buñu santé yalla mbok yi dañuy

Euh, pour waxaat que ba ñuy dem ci dialogue bi euh, te ma ci insisté parce que tey dafa am ñu bëgg lëndëmal xel bëgg yàq xol yi ak yàq xalaat yi su ma baat ci kaw Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal dañ koy pencoo waxtaane ko ngir ëllëkam euh, parce que lu ñu gëm ñun mooy ci jàmm la lépp xaj motax mané dina ne dinaa dellu siwaat ci vidéo yi ñëk interpeller président Macky Sall ginnaaw bañ ko euh wax ko que dialogue bi mën nañ continuer di waxtaan parce que amna ay points nam point yu ci ëppoon solo yalla def na ci sutura wante amna ay yenen points yu ngeen xamné ni wax dëgg yalla euh mën nañ continuer di tok di ko waxtané politique

parce que daanaka dafa am ñuy fural wante askanu Sénégal yan lay waxal Sénégal suma baat ci kaw te ñëpp ak may dégg amagul benn acteur politique fii tey Sénégal bu fi am 30 pour premier tour élection présidentielle moo tax may sakku ci président Macky Sall euh, na def kenn kàttanam ba élection bi mën a nekk inclusive bien sûr pour ñuy respecter euh, les conditions pour mën a bokk ci élection yi parce que euh, am élimination loolu mom lañuy ñaawlu moy sélection buñu bëgg organiser à la à la place de élection wanté nak amna ñu ngeen xamné ni euh, du ñu parce que tamit dañu bok ci république té république dafa am loi ak ay texte wanté ñu ngi insister ci li di l'inclusion euh, de tous ci élection yi parce que lu may wax ni tax mu am solo dernière élection buñu ñu Sénégal moy élection législative ñu and ci ak président Abdoulaye ci cadre intercoalition Yéwi Wallu donc mbooloo boobu bu ci ñaari coalition yi intercoalition moo joxoon élection yi ñu à peine 51% PDS ba candidat Sénégal avec la gauche euh, candidat yëkkati seen loxo ne dañuy candidat gisuma ñu bëgg éliminer ñenn ñi wala ñuy joxe impression que ñu bëgg éliminer ñenn ñi naam am nañ droit fural wante suma ci kaw amul kuy gagné élection Sénégal tey premier tour amul kenn ku neex nag yëkkati loxom ku mu neex dama ne ci kaw ci Ablaye ak Askan Wi ñoo loxo pour am à peine 51%.

mais il lance un appel à tous nos amis de la gauche Tes candidature vous ñuy portez à travers la modeste personne de Khalifa Ababakar Sall candidature Bobo, c'est une candidature de principe candidature de valeur candidature d'avenir euh, Nam degle la am ñuy di fate, malandi di que lu ñu parti socialiste ñu parti socialiste tëj ñu ci kasso bi presque ñetti at moy parce que dañu yëkkati won suñu loxo né dañu am ambition bëgg a Sénégal bëgg a liggéeyal Sénégal bëgg tabax ëllëgu Sénégal loolu moo waraloon ñu tëj ñu ci kasso bi dàq ñu parti socialiste fokk ti suñu ay mandat moo tax socialiste yi ñu ngeen di tàllal suñu loxo yi te inshallah am yaakaar ci ay fan yu néew dinañ mën a toog waxtaan waxtaan waxtaanu. Sénégal ak waxtaanu ëllëgu Sénégal parce que ku tudd Sénégal di nga tudd tamit euh, au Sénégal te ku tudd te ku Sénégal di nga tudd lu parti socialiste jot ligue Sénégal